jërë ngeen jëf gars ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar fii ci wasaare làmb tey nag dañoo ñëwoon fii ci marché Zinc di leen defal micro trottoir huis clos ba xam enrage na amateur yi nga xamante ne ñooy seetaan làmb wala ba xam enrage ñi nga xamante ni ñi ñooy bëgg làmb tey nag ñu ñëwoon leen fii doo leen defal micro trottoir xanaa ñu dugg fii ci restaurant bi xool ñi fi nekk ñi nga xam te amateur lañ ñu waxtaan nañ ci loolu kàggu acca nañ dem mais ziar na. delloo ziar delloo ziar. sant yàlla bu baax a baax. Euh, tey waa Wassare Lamb dañoo déplacé wu ñëw fii ci marché Zing. ah di xool ba xam lamb mën na nekk huis clos wala boobu mën nañ tijji amaate yi daan ñëw leen daan ñëw. yaakaar yaakaaruma ni mën na nekk huis clos. sponsor yi ni ko nangu amateur yi ni ko nangu loolu gisuma ni solution la ci lamb quoi waaw man daal lu ma gis mooy. comme que feer bi am na rek mënuñu cee mënuñu cee ñàkk ak lamb moog lamb mënuñu ànd ñu xool nu ñuy jëlee mesure barrière rek bu ñu dugg jël jël

waaw man noonu naa ko gisee quoi sincèrement wax dëgg yàlla. kontaan naa ci. ñoo barke jaww. aja Ouzin Wassare. lay nuyu di nuyu waa Wassare Lamb. waaw loolu moom d'accord ci ñun amateur lamb quoi parce que lamb ak supporter ñoo ànd. parce que supporter mooy tax lamb neex supporter mooy fay mbër. te loolu bu ñu ko defee day rey lamb te arrangé wul mbëri aussi. parce que yow da ngay bëgg di di bëre gis ay supporter gis benn sil ba yaa naa la eh lii ñu ngi sa ginnaaw tey waroo ñàkk lamb te loolu day yokk mbër mi job mais dooy bëre gisoo kenn sa ginnaaw day tax yow boo waroon def benn doo doo ko def dañuy dañuy ñaan ministère bi na def supporter yi dugg takk seeni max def espace waroon def mille personnes ñu def ko benn huit cent personnes bu ñuy yokk bee sax jaral nañu ko mais wii ko la ñun bëgguñu ko parce que moog làmb àndul làmb ak supporter ñoo ànd man moo rek la am am lu ma ciy wax di ñaan feebar bi yàlla na fi jugee ak jaam ak salaam dëkk bi ñëpp nekkaat si ndax nit ñi sonn nañ torop nit ñi demuñu dikkuñu waaw ñu ngi jàpp nit ñi si max 3000 da nga gis booy bu xëy sax di dox soxlaa mi jàpp ko te amul sax lu mu dékkee nga naan ko fayal 3000 nit ñi nañ dañoo sonn nañ jàppale nit ñi ñu génn liggéey mbëri dañoo war a liggéey jaaykat liggéey parce que programme bu amatul bi doxul dox dëkk bi dara doxul. lamb jot dimanche jot amateur bi war dem ñoo jënd ñaw lu ko dem sañse ku ne gis si boppam kon yow daal bu ma déggee wax ji mooy solution bi daal mooy gars yi takk masque loolu mooy yoon nañ takk masque ba corona jeex bu jeexee na ñu dellu si lu nekkoon nañ takk masque yor seen i gel teg ko si buntu stade yi kuy dugg laata gel takk sa masque dugg seen làmb masque bi tas loolu rek moo fi am amul leneen parce que mbëri mënuñoo tëdd dañoo yor ay famille te mbër mu nekk am nga benn am cinquante personnes bu ne sa ginnaaw te soo soo jëlee avant si ngay dund yaak say njaboot te yor ay doom da leen dañuy fay école ak yëpp dañ sóoraale loolu mbër bu toog bëriwul ay at ay xale yu ndaw lañ am yoo am doole dañuy dañuy jàppale ngi di nangu lu ñu par force lu leer laa wax ñun ñun xam nañ ci dara booy bu ñu toogee dañuy dañuy xewar yoruñu xaalis bu ñu benn waa ji yor xaalis dañ koy duma jël xaalisam faj seeni soxla te du mujj fenn te làmb ji mu ngi doon dimbali dimbali Sénégal parce que doon tax boo yu bëri yu liggéey làmb ji moo leen dimbali ndax si lañ doon xëy nekk sa bu ñu xëy dem géej bu ngoon ñu dem saar di am combat di bëre di am di yàlla di leen defal sutura ku toog nag liggéeyoo am doole xale bu ndaw billaay si nit ñi nga koy jëlee li nga yor koo romb gis ko kii yaa ko ëpp doole da ngay nangu lu mu yor fayee ko soxla marché bi tas kenn du la jàpp ministre bi na bàyyi booy dem bëre ji te yàlla tax Matar Ba loolu lay ñaan yow soo waxee Macky Sall Macky Sall dina dina la dégg parce que nit ñi ñoo la bëggal seen bopp ministre boo xam ne da ngaa jege population bi nga waaw loolu moom yàlla defal na la ko man ministre Macky Sall bi yaa ma ci gën a neex loolu moom yàllaa ko def parce que da ngay liggéey da ngay liggéeyal jeunesse bi bëgg yaa ngi liggéeyal sport bi yaa ngi liggéeyal ñëpp te da ngaa jege population Sénégal waa yàlla na sa jaamu yàgg Matar Ba waaw kontaan nañ ci kontaan nañ waa Wassare Lamb. incha allah waay naka yi tey waa lépp taw féex rek. ñu fekk li fii nga toog ñu bëgg a waxtaanee ci lamb ndax boobaa ak léegi làmb ci juwul léegi amateurs yi ñoo ngi leen propose huis clos est ce ngeen ci huis bi waaw wala déet waaw kontaan naa ci question bi parce que instant bi amateur yi namu noon làmb te lamb dafa nekk loo xam dafa bokk ci Sénégal quoi mais pour man instant bi ñu toll nii nii nii ak Covid bi nii ni mu demee nii pour man làmb yaakaaruma huis clos dina dem si làmb quoi parce que xam nga nit ki loo bëgg-bëgg dara loo ko bëgg-bëgg tam dangay ngay waxta akulaay taala ak li nga xam ne mooy réalité mooy dëgg quoi parce que làmb tey boo xoolee bu ko defee wii clos tey ji Eumeu Sène tey bu doon bëre tey ji euh, Modou Lo wala Lac de exemple Eumeu Sène tey bu dee tey lay bëre exemple ñu ne huis clos lañ koy def tey ji boo demee këram mbooloo bu bëri nga fay fekk convoi bu mag mooy jóge foofu yóbbu ko stade xanaa bu dem ba stade lañ dul te buñ duggul tamit dinañ nekk ci ci ci ci ci ci ci buntu stade bi quoi rassemblement day am mun a ñàkk man li sama xalaat mooy instant bi lamb ji daal pour man non nañ ko aj quoi man loolu laa gis quoi ñun ñëpp namm nañ lamb nag mais tam da ngay wax laaj rek ak dëgg rek quoi parce que rassemblement moom mënoo wax a wax ba du am loolu moom day am kenn mënu si dara. waa man loolu laa gis quoi wax dëgg yàlla sama xalaat nag quoi waxuma nag pour ñu def loolu mais man sama xalaat man Mor Seck personnellement su ma sañoon làmb ji ñu baay ba affaire yi wàññeeku wala ba mu jeex quoi ci kàttanu yàlla te ñaan naa yàlla 2021 bi affaire yi féete boor quoi. mais mais mais mais ñi ñi wax naan nañ jël euh, masque yi ñu takk ko jël gel yi ko buntu bu ci biir jël distance yi ñooñu loo leen wax. waa peut-être sax loolu sax mun na nekk ñu am benn nombre buy dugg rek su ko defee ku bu toogee dànd sa morom benn un mais làmb daal dafa bokk dafa nekk loo xamante ni daal neexul organiser quoi parce que tey dangay ngay toog supporters yi xam nga booy mooy lool noonu xam nga dañuy taxaw def lu leen neex mënoo yéeg ci kaw tribune chaque instant di gis fii problème di gis fee problème di gis fële problème nga yéeg di ko lijjanti loolu du yomb. du yomb mais tam mën nañ ko xool neneen noo xamante ne mën nañ ko organiser neneen noo xamante nii xam nga amateurs yi ñëw comme ñi nga xam ne ay amateur lañ ay kilifa lañ ay mag lañ ñu ñëw ci làmb ji. ba pare wàññi supporters yi quoi amateurs yi ñëw seetaan si lamb bu ñu pare dem ñibbi mais bu fekkee supporters dañuy ñëw stade moom munoo wax a wax ba encore moment du am quoi parce que gars yi ku ci nekk ak sa mbër buy bëree dangay ngay ñëw xatar da ngay ñëw ak maanaam supporter quoi. loolu moo xam naa dina jafe organiser mais tamit lépp loo gis si àdduna rek organisation la laaj am na nu ñu koy organiser peut-être làmb mun naa am quoi. kontaan naa ci yow. waaw jaajëf waay. waaw siyaar bu wér de Fall lépp jàmm naka waari. waa ñu ngi sant bu wér alhamdulilah. Euh, huis dina jëmal làmb kanam waaw la déet. huis clos ah maanaam dina jëmal làmb kanam dina delloo dina delloo dina dina jëmal làmb ginnaaw mais li am solo ba am solo moom mooy comme instant ñu toll nii tamit maanaam situation oblige maanaam il faut ñu jéem a xool tamit solution boo xamante ni maanaam mbëri dinañ mën a tooyal xaftaan parce que tamit làmb buñ ko bàyyee nii nii instant ñu toll nii làmb mi ngi sukuraat. te buñ seeraanee tamit ci dee la jëm moo tax échange toll nii il faut tamit ñu jéem a xooli pexe comme Macky Sall moom euh, président Macky Sall daf nii il faut essayer de vivre avec le virus échange toll tamit il faut ñu jéem a vivre ak moom parce que tamit pët pët tàqalewul mbaam ak i noppam comme échange toll nii jox na sunu sunu ci àdduna bi te tamit caaxaan jëlew ko fi li ñuy def rek mooy jéem a xool ay matukaay yoo xamante ne dinañ ko jël mën a doxal activités yi activité bépp mu mën naa ñu pour accompagner promoteurs yi parce que tamit laam dafa metti promoteurs yi fekkente dañuy def huis clos tamit seetaan leen noonu ñu war a jaay seen i billets jaay ñu bëgg a fay mbëri te ku ne xam nañ tamit lamb bu fekkente dañ ko def huis clos mu wéet sponsor nga xamante ni doon nañoo ñëw di ci financer pour ñu ñëw day xaw jafe parce que day géey mais tamit moo tax ne tamit bañ bañ bañ koo def parce que moo tax ne bañ koo def tamit parce que instant ñu toll nii loolu olof Ndiaye naan euh, sa bët di sew yi moo gën toppal sa ndeyjoor comme instant ñu nii moom amuñu lu ñu gënal nañ jël li fa sës rek moom laa ci gis quoi pour man waaw. li fi sës li fi des mooy comme wiikuloo bi ñu wax noonu fexe tamit jël suñuy distance fexe daal def noo xamante ni maanaam dañuy jël suñu précaution quoi comme euh, affaire wu jaxasoo beeg yooyu noonu ñu xaw ko wàññi mbër yi même bu dee dañuy préparé wu tamit ñu jéem a tamit waxtaan ak seen i supporters waxtaan ak seen i am di jàmm que ba yenn rassemblement yi bañ a am ñu simplal ko daal fexe ñaari mbër yi ñëw bëre ñu def ko en direct amateurs yi mën koo seetaan xooli féex ndax Sénégal moom waxtaan wax dëgg ca la mënul dem sans làmb parce que la bëgg nañ ko te niñ koy conseil conseil wuñ ko benn sport waaw. kontaan naa waaw rafet na ñu ngi leen di sant leen gërëm di rafetlu seen liggéey yéen waa wasaare làmb parce que liggéey bi ngeen def lu am solo la ñu ngi leen di suivre ci internet bi partout leen ñaanal yàlla ngeen dem a dem ba ami teleek maanaam waaw noon lay demee daal. yéen ca kanam ci lu baax. maa leen di fay. ci jàmm. maa ngi sant bu baax. Euh, tey ñu ñëwoon fii bëgg a waxtaan ci huis clos bi nga xamante ni ñoo ngi koy wax ci làmb lamb wa am supporter ñu ne dañ koo bëgg tëgg te supporter du ci am est-ce que loolu d'accord nga ci huis clos bi. huis clos bi d'accord naa ko sans départ rek ci règlement bi ñu respecté règlement bi xam ne corona bi dëgg la tamit xama rek àdduna bi moo changé waykat yi gënalu leen làmb ji tamit kon nañ ko respecté ba corona dafa am dafa existé su wàllu suñu wér yaram mais tamit ñu takk masque yi rekk def zèle yi. def zèle yi waaw. wàññi tuuti supporter nit ñu dugg ñu bëri. waaw wàññi supporter yi mais tamit làmb est-ce que mën na am sans supporter tamit du neex. ah looloo jaral laaj. waaw du neex. loolu moom moom pour man moom sama xalaatu bopp mënu nekk du neex parce que làmb mu supporter yi ñoo koy dundal ñoo koy neexal parce que yow sa sa mbër bëgg nga dem seetaan yi nu muy sumbukaayam nu muy nu muy summeekoo ambiance bi loolu mooy neexal làmb. dimanche jot nga waaj ko sañsee jubali stade sañsee waaw sa mbër nga dem xooli sa mbër kontaan bëggee dindi sa stress pour man daal làmb mënu am sans supporter waaw dama part man. kon yow daal. non non ma si. kontaan naa ci. maa la gën a kontaan. jàmbaar nuyu naa la. fay naa la. léegi nag dañoo ñëwoon pour waxtaan ci làmb ba xam mën na nekk huis clos waaw ou ndax corona bi bi mu dugg seek léegi euh, làmb amul làmb commencé na ci nit ñi naan nga ko def huis clos wala ñu bàyyi noonu est-ce que d'accord nga ci huis clos. non moom franchement suñ sañoon làmb ji supporters yi dañuy ñëw teew ñu ñëw bëre mu neex ñu ambiance ñu loolu lañ gëm ay huis clos gëmuñu ko loolu tubaab yi la intéressé mais ñun intéressé wuñu wax dëgg yàlla buñ lamb ji ci mën di am ñun dañuy ñëw teew takk suñuy masque loolu mën na ne nañu bàyyi ñu takk masque ñëw seeraan lamb bu jeex. te stade na mën nañu def supporter yu ñu toog nii supporter yu ñu toog nii amateur yi ci kaw. fii lépp mën naa nekk ragaluñ loolu li yàlla rusoo lii ñu yor lamb ji nañu bàyyi ñu ñëw dugg seeraan lamb ñu loolu lañ namm takk suñuy masque masque rek la ñuy sant kay loolu yomb na nañu ko bàyyi ñu def ko te yàlla tax. waaw yaa ngi kaas de. non lamb mooy suñu cosaan bàyyi. barke sëñ naa moo xam ne ñu topp tubaab bi quoi ñun moom gayen lamb su amee moom lu ñu gënal mooy xam nga ambiance bi gars yëpp nekk ci ci ci xam nga ñi nekk loos ñi nekk ci xama nga bëggee quoi voilà ñu nekk ci jàmm waaw mooy loolu. dimanche jot nga sañse dem seetaani sa mbër mu daw tuus nga daw te yuuxu. waaw xoolal loolu rek namm nañ ko trop trop trop trop trop sax su ma soñoon daal xam nga gars yi xam nga affaire yi waxi bii kuloo mu teg ko suuf quoi ñu bàyyi gars yi ambiance ci kaw mooy loolu noonu. lan mooy lan mooy solution bi pour ñu mën a dem làmb jo dugg sans autant ñu ne kii lan mooy solution bi. waaw ñu teg ci bunt bi ay gel xam nga kenn ku ne respecté mesures de barrières yi xam nga kenn ku ne yor sa masque sa poche sooy dugg si nga takk ko xam waaw ñu respecté euh, normes yi quoi waaw bañ a déborder aussi waaw suñ ko defee daal gëm naa ne gars yi dinañ ñu dinañ dinañ dinañ gën a kii daal mooy loolu. kontaan waaw jaajëf comme maa ngi leen di siyaar. ci jàmm. maa ngi sant bu baax di nuyu di leen nuyu waa di rafetlu seen liggéey aussi. Ndiaga Niang mën naa ne promoteur. mais tey ñu ñëw euh, def micro-trottoir ci euh, huis clos ba xam bokk na ci li nga xamante ni dafay jëmmal làmb parce que gis na ku ne gis na fi làmb toll ak crise bi ñu nekk ñenn ñi d'accord nañ ci def ko wii clos. man ni ma ko gisee d'abord man gis naa ni sponsor dañu war a fexe nu état bi jàppalee làmb ji ba sponsor yi ñëwaat voilà parce que euh, làmb moom wax dëgg yàlla doon na loo xamante ni surtout combat yi mag yi man am voilà boo xoolee làmb yu mag yi maanaam bu amul accompagnant bu sponsor bu dëgër wax dëgg yàlla promoteur yi ku ci tëgg boo moytul dootoo tëggaat donc état bi état bi comme mi ngi jàppale secteur yëpp parce que xam na ni crise mondiale moo am ñi ngi jàppale artistes yi woykat yeeg nangam nangam nangam donc làmb ji pourquoi pas ñu jàppale leen parce que làmb li muy li muy produire dafa bëri làmb ñi ci tedd dafa bëri ñun xam nañ si dara dañ daan organiser voilà ku nekk jóge fale ñëw maanaam jariñu yóbbu sa kër ñiy jaay sandwich yi fii ñiy jaay ndox yi ñiy jënd bii yi di jaay donc voilà voilà waaw xam nga ñi ciy jariñu dafa bëri donc doon na sport boo xamante ni Sénégal fii amul sport bu ko ëpp doole mm. làmb tey jii bu commencé woon ba combat bu mag bi di waaj am boo génnee ci mbedd doo fekk kenn mm-hmm. kilifa yeeg ñëppay seetaan làmb donc loolu nekkul culture bu ndaw dañ ko war a fonk xool sponsor yi nga xamante ni ñooy jariñu ci ñun ñu fexe ñoom ñuy jariñ làmb ji parce que ñun loolu lañu am moom mooy suñu sport national football dañ ko jéggaani basket noonu làmb moom mooy suñu culture. te sport yëpp tijji na fi mu toll nii. voilà léegi mesure bariere yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def ci yeneen sport yi pourquoi pas ñu def ko ci làmb mooy bu jaree ñu def di distance ku nekk takk sa masque te ay amateur ay nit yu civilisé lañu. Mm-hmm. duñu xeex duñu xuloo dañuy toog kafre donc loolu pour ñu organiser ko du doon lu metti nañu xoolaat balaa ñuy huis nañu nañu xool nu nu sponsor yi jàppee ci làmb ji d'abord. loolu moom moo ëpp solo parce que tamit euh, stade bu amul benn nit promoteur bi fay ay centaine de million toog noo wax dëgg yàlla loolu risque la. voilà man xam naa ci dara jaar naa ci cirque làmb xam naa nañ koy organiser donc voilà ay ay ay complications lay indi nañu fexe état bi. ñu weñ loxo sponsor yi ñu jàppale làmb ji man daal loolu laa gis wax dëgg yàlla. léegi bu weesoo loolu bu weesoo loolu à loolu yan yan yan yan yan yan yan solution nga gis yoo xamante ne nii bu ñu ñëwoon maanaam ci ci ci ci làmb ji moom la ñuy utiliser pour mën a dugg ci biir làmb ji. waaw instant bii nii moom solution bi mooy lenn mooy que euh, situation bi compliqué na voilà mbër yi instant bi bëreetuñu mhm. te làmb ji mi ngi ci crise état bi kase moo mën a. soutenir làmb pour le moment mooy ni mu leen di soutenir du dul ñoom ñooy jël xaalis jox ko promoteurs yi euh, ñi nga xamante ni ñi ngi ñi ngi liggéey ci dëkk bi réseau yi ñi ngi fii nit ñi chaque jour ñi ngi consommer seen ay ay produits voilà pourquoi pas ñu jàppale làmb chaque anne ñu génnee budget ni lii sponsoring la bu ñu ni ñoom dañuy génnee ay budget yoo xam ay mil multi milliards lay doon. di ci benn nit di ko def ci Wally Seck di ko def ci Youssou Ndour te làmb ñi ciy dund dañoo bari. ñi ciy dund moo bari du jeex donc loolu. nañ ci xalaat ñu fexe ni ñu accompagner làmb ji jeunes yi liggéey parce que wax dëgg yàlla làmb li mu détourné dafa bëri ay jeunes yoo xamante ni yor nañ seen doole mënoon defi leneen ñu concentré wu ci làmb donc ñooñu lu ñu ñu war a encouragé lañ waruñu leen a seetaan donc état bi nañu nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax. kontaan naa ci yow. maa ngi leen di bëggee mais kontaan ci seen site bi ah. yàlla raw euh, nu mu tuddati. kanaal ak yooyu noonu ay tv cinq yëpp doo xool.